coalition bi tuddee boppam euh, sàmm sa kàddu te Barthélemy Dias jiite ko ñoom ñoo nekk bëgg lëmbe élection yi bëgg wane ak reewande ak boccatiku man jàpp naa ni képp koo xam ne yaa ngi ci réew mi su fekkee jàmm nga bëgg da ngay dut baaraam ki tooñ ki tooñ mooy ki dem fekk ay commerçant ak ay nit ñoom ña nga ci seen bërëbu kaay nga romb leen ñu ni sonko sonko ba ne nee sonko sonko te yow sonko neexu la nga wax yow it sa leader nga ni laay sàngara laay sàngara mais yow yow léegi kee bu ne sonko sonko yow bu fekkee nte ne laay sàngara nga àndal neen laay sàngara laa àndal am nga ci parce que réew mi nag réewum démocratie la mais nit ki nga romb ko mën la sonko sonko au nga ne ko laay sàngara laay nga dem jël say euh, yat di ko song jël sa jaasi di ko jam mais loolu jaaduwul réew mi réewum démocratie la parti bi nekk au pouvoir jaayul doole kenn dafa ñëw dal xam ne élection yi incha allah da koy gagné au la main des Euh, euh, mënu moo sax dès le premier tour parce que élection bi moom benn tour la raw gàddu la ci département yi proportionnel la selon la coefficient électoral te bu buñ ci mën a jël la quotient électoral bu buñ ko calculer bu ñu voté ba pare jàpp naa ne coalition yii di wax yu bëri bu ñu mosee benn député wala ñaar wala ñett ca la ni yem fii gisuma fi benn coalition boo xam ni man na fee am moom cote donc ab groupe parlementaire bu dul euh, Pastef gisuma ko ci gisuma kenn ci ñoom ku fi mën a matale ay voix yu la may benn groupe parlementaire parce que un groupe parlementaire c'est treize député treize députés nag gisuma benn coalition ci ñoom coalition yi di xëccoog ñun ku ci mën a am treize députés gisuma ko ci ki ci nenu baxal moom moom laa ci gën a yërëm parce que nenu baxal mënta nekk député parce que onzième position la nekk sur la liste bi nga xam ni c'est la liste poids plume parce que amuñu doole ay tur kese lañ dajale man jàpp naa ni ndeysaan dina ci xeex ba bëgg a dee mais du nekk député parce que onze députés mun ñu ko am sur la liste nationale ñoom waa sàmm sa kàddu maa ko wax fii man kenn du ma vaar sàmm sa kàddu mënta am onze députés du ko jege sax ñu bari ci ñoom ñi taxaw ci kaw oto bi mooy oto boobu am moom rek la ñuy wone te duñ wone seen i nit parce que amuñu ko toujours taxaw ci kaw oto bi la ñuy def attaqué saaga sànq rek gis ngeen Barthélémy Dias di def déclaration naan moom dafa xaar ci suba ba léegi pour ñu ñëw këram kenn ñëwu fa te yàlla xam na ne bu bu bu xale yi demoon këram musiba am bu xale yi demoon këram kër gi doom lañ koy def loolu musiba la ñépp a ngi doon ñaan démb ak bi ñu xëyee bu loolu am heureusement loolu amul parce que qu'on le veuille ou non Pastef seeni militants dañu discipliné loolu mooy dëgg am nañ nag xarañte ci politique occupé nañ waabale réseaux sociaux yi mën nañoo Euh, euh, euh, campagne xam nañ nu ñuy campagner am nañ seen i élément de langage occupé nañ la communication digitale loolu mooy seen force ba noppi tamit am nañ xam-xam parce que politique tamit da nga koy laal ci am xam-xam bu fekkente ni yow am nga organisation am nga parti bu structuré am nga kilifa goo xam ne déggal nañ ko ñoom militants yi kilifa gi am na vision xeex na ba jot ci réew mi ba noppi teg ko ci dëgg ànd ak sénégalais yi won leen fi mu nar a jaarale réew mi wane référentiel politique publique yi nga xam moom la nar a teg euh, euh, teg ay pôle pôle territoire teg ay pôle de développement yoo xam ci la nar a jaare pour vraiment booster la croissance au Sénégal sénégalais am yaakaar ci moom mais kooku nag bu fekkente ni am nga parti bu mel noonu muy dem élection ñëpp xam ne moom moo yor majorité bi mais c'est tout à fait normal euh, wax dëgg yàlla mu tiital ñeneen ñi ñeneen nag tax mu tiital leen mooy yoruñu ay parti yoruñu ay coalition en réalité devant Pastef y a rien je l'ai toujours et les résultats du 17 novembre 2024 dañ ko wane incha allah devant Pastef y' a rien parce que ñi mu nekk ci réewane lañ bëgg def parce que Barthélémy Dias sànq ci déclaration bi ay saaga kese la fa def li mu saaga li mu utiliser fen ci discours am boobu nga xam ni peut-être matul trente minutes mais discours bi li mu fa wax ci fen fen fen fen dafa dafa dafa arrogant réew ba maara day taali tey boo ko muy wax et puis du tey kese. fan yii yëpp à chaque fois mu yëkkati kàddoom ci saaga la ko yëkkati saaga ak wane reewande politique nag du reewande politique xam-xam la politique bëgg sa réew la politique gis-gis la politique ay doxalin yu sell la politique mooy nga xool yow lan yan yéene ak yan jaar-jaar wala yan yoon nga nar a def pour teg loo xam ne sénégalais daan la wóolu dénk la ay responsabilité pour nga doxal léegi nag moom bu fekkente ni ci reewande kese la teg li muy def mais loo kooku ban njariñ la amal sénégalais bañ koy voteel moom comme ni ma koy waxee moo ko waajam àndal ndeysaan ku ci koo ci dégg mu wax rek nga xeeb ko bu dee nenu baxal wax dëgg yàlla moom bu waxee rek nga xam ni kii bu fekkoon te ni am nay mbokk dañ naan ko yow góorgóorlu ci période bii nga nekke comme réew mi am na ku ko ngànk téye ko te leer na ma ni sénégalais yi tàqale koogu ñoo moom demal profité ci nga dem jàngiwaat boo jàngiwaatee ba am as tuut boo ñëwaatee politique neneen bu amoon ni mbokk loolu lañ koy wax moom Barthélémy Dias mu àndal c'est la même chose parce que moom dafa jàpp ne lépp ci doole lañ koy defe alors que réew mi réew pour que nit ñi bëgg la doo jaay doole da ngay da ngay wane ab yar wane xam-xam wane gis-gis loolu mooy tax nit ñi topp la kim ji ki ñuy xëccool ñoom muy Ousmane Sonko dafa wone bu nee bërët dafa won seen dafa woote ci xam-xam ñëw di bind ay livre am di dem ci ay émission di wone ni moom xam-xam lay la la lay lay politiquer gis-gis lay politiquer li fi nekk la fi bëgg a jëlee teg lu ko gën a baax pour euh, askanu Sénégal gën a gën a gis boppam ci ni réew mi di doxee mais loolu la ko sénégalais yi toppee mais yow bu fekkee ne yow loo wax wax wax toj-toj dafa nga ne bu ñu demee ba baat la mi jaar taxaw naan léegi moom euh, Médina la bëgg a def euh, benn pole de développement ak ay pôle économique waaye yow Médina di quartier. nga ne moom ngay def pôle économique ça veut dire que xamoo luy pôle économique mën naa am nag ay euh, projet yu mu bëgg a développer biir Médina wax ne yii projet laa bëgg def pour suqali Médina lool ma ne sax koo comprendre waaye jël ab quartier Ndakaaru nga naan da nga koo bëgg a def pôle économique ça veut dire que xamoo luy pôle économique cest à que ñoom koo ci déglu da nga koy xeeb du ñu waxe ci xam-xam ci réewande rek la ñuy waxe li ma bëggoon nag ci li nga xam moo xew Sénégal ku seetaan bu ëllëgee bul euh, yore sa miñ di wax parce que dañoo xam ay organisation de la société civile yoo xam ni fu réew mi mos a jaxatoo jaxasoo dañ daan génn di wax waa léegi ana ngeen léegi yéen gis ngeen ne waa coalition sàmm sa kàddu ñooy dem di karaate karaat kar nañ nit ñi dëkk yu baree baree baree bare ndar da cee gën a metti ndaxte noo cor nit ñi waa léegi buñ demee ba ab coalition yore ay arme di cor nit ñi yéen ñi xam ne yéen lañ mos a dégg ci Sénégal waa société civile bi mais tey lu tax ngeen ni pat pataaral seenu roq kenn déggu leen lan ngeen di xaar pour wax ku ci mel ni Alioune ak ay Moundiaye Cissé ak ñu mel na ñoom lan ngeen di xaar pour wax ci lii télévision tappalekat yi nga xam ne ñoom opposition bi lañ daan attaqué bu fitna amee tey am nañ jafe-jafe parce que xanaa ñëmu ñoo taxaw naan pouvoir bi la léegi moo tax yéen ñi nga xam ne yéen normalement waru leen a faral kenn da ngeen a war a tëdd njaaxaanaay mais lan ngeen di xaar pour wax bu leen bu leen bu leen bu leen gàcceel mukk seen bopp nag di génn naan di équilibrer ak di ak ak di généraliser ki tooñ ngeen di dut baaraam ku bëgg jàmm ci pénc mi ki tooñ moom ngay dut baaraam ne ko yow yaa tooñ bu ko defee kenn tooñ nga ne ko muñal mu muñe ko leen ko tooñ mais ku fi génn ci yéen yéen société civile bi naan da ngay jéem a équilibrer ak naan politiciens yi ñoom ñëpp a yem ak naan yéen politiciens yi wut leen jàmm violence bi ci politique bi na dakk mais di généraliser te du ngeen dut baaraam ki tooñ bu ngeen ko defee ay naafeq ngeen bu dee da ngeen ne pat ni ngeen ne pat pataaral nag toog seen ruq te gis ki tooñ nangu leen ko dut baaraam ça veut dire que yéen bugg leen jàmm am ci réew mi te bu ëllëgee daan leen ko fàttali lii xew ci réew mi munu leen a noppi lii waa ànd sàmm lii waa sàmm sàmm sa kàddu gii ñu am ab coalition la bu tekkiwul dara mënta gañe benn département mënta gañe benn commune mënta gagné benn centre de vote ñoom ñooñu nga am ñoom ñu ëpp ci ñoom seen bureau de vote dañ leen faa nar a amuñu benn représentativité au Sénégal tekkiwuñ dara ba noppi di karaate nga xam ne nit ñi mën nañ leen a nappaaje parce que foo leen gisee ñu ànd ay oto yi kese la ñuy am mais amuñu am mbooloo moo am moo leen dar ku mel noonu bu dee dem di karaate ça veut dire que wax dëgg yàlla day xaru te day tooñ yéen nag da ngeen fee war a nekk tëdd njaaxaanaay mais ngeen di seetaan. lu mel ni am Sénégal kenn déggu leen ci te bu ngeen ci dee wax ñeme ngeen a génn naan politiciens yi ñëpp a yem nañ wut jàmm di jéem a euh, généraliser alors que xam ngeen ki tooñ dama ni réew boo fa nekkee te yow nga bokk ci régulateur sociaux yi soo gisee camp boo xam day tooñ da ngay dem ci camp bi tooñ nga ne ko yaa tooñ loolu mooy indi jàmm mais bu ngeen généraliser naan politiciens yëpp a yem ay wut leen jàmm yéen politiciens yi affaire yooyu su ngeen ko waxee ça veut que yéen ay naafeq ngeen su ngeen seetaanee tamit bu ëllëgee. bu leneen amee ci réew mi bu leen ci kenn dégg lii dangeen ngeen cee war a am position taxaw wax dëgg ñi nga am ñoom ñooy tooñ bu ko defee ñen tooñ ngeen defal leen loolu mooy seen rôle mais bu fekkente ni nag da ngeen a jàpp ni bu fekkente ni yéen seen camp bi ngeen bi nit ñi njot ni moom ngeen far bu ñu tooñee kenn du leen ci dégg ça veut que yéen du ngeen société civile bu neutre société civile dañoo war a taxaw tëdd njaaxaanaay bu amee ñu tooñ ci pénc mi ngeen dut leen baaraam ni leen yéen yéen tooñ te ñëpp gis nañ ni benn coalition moo fiy karaate muy la coalition sàmm sa kàddu ñoom ñoo fi yore ay arme di kar nit ñi mun leen nag toog ci seen ndox lu mel nii am Sénégal te tey jii bu doon tey jii parti au pouvoir bi moo fi xusi woon nit xusi laa leen wax xusi parti au pouvoir su fi xusi woon benn nit yéen ñëpp da ngeen takk seen i rajo fu ne ngeen dem fay wax émission bu nekk ngeen ne fa naam drame di attaqué nguur gi léegi nag tey jii nguur gi lañ attaqué te pourtant nguur gee yore doole ji parce que nguur gi su fayoo musiba am parce que doole ji nguur yor mais waxuma la sax nguur gi nguur gi nee laa koy tege dama la doole ji Pastef fi yor su fayoo musiba am kon nag yéen war leen a toog di seetaan wax leen dëgg Barthélémy Dias mii ak ay mbokkam wax leen leen dëgg parce que seen réewande gi mënta continuer de ci nii wala ci naa day arrêté